salaamaaleykum maa ngi jëloon ziar bu baax a baax ah waaw loolu kon taw fexe ndax daanaka man daal maa ngi côté buntu bi gin donc li may def mooy damay jaar central équipement rek li jëm ci bagage ak moo ñu ngi dem incha allah bu soobee yàlla. sëñ Fallou équipement dafa centraliser lépp loo soxla ci équipement cuisine ci seen ndaje dine yu mag lu si mel ni màggal wala gàmmu benn bërëb rek sa aajo daal di faju central équipement di jox lépp luy taaral kër di bakkanal dund gi Central Équipement. Venez vous équiper à moindre coût. Nos prix défient toute concurrence. La qualité est notre credo.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 lu ne ko dégge daan na ma sam sa sa sa mag ji suñu saabu siru ba mu fi nekkee la genn waalu la mu daa dégg déggoo ko ne ma sa baay ba suñ basiru itam ba mu fa nekkee genn wàllu la mu daa dégg déggoo ko kon loo dégg rek xam déggul ko kon loolu rek mooy boo xoolee foofu rek xam ne loolu amul solo kon li am la mooy di seere suñ tubaab te man yàlla defal na ma tawfeex sax li ci bari dañ moo koy nettali ndax defuma ko sama programme.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 هماني هلا ما هن ما الأبس والسفر